سيدي الله وبخليلك الله الحمد لله رب العالمين الحمد هو مطف بكل كمال ولا يستيقه على الحقيقة خير الله رب العالمين هو ربهم وسيدهم ومالكهم ومسلم أحوالهم حالا ومآلا فضلا منه لا وجوبا عليه الرحمن رحمته عام لعباد المؤمنين والكافرين في الدنيا رحيم رحمته قاس لعباد المؤمنين في الآخر ملك يوم الدين أنت مالك اليوم الذي لا ينفع فيه إلى الدين يوم الآخر إياك نعبد أي لك نعبد وإياك نستعين أي نطلب منك الحونه اهدنا الصراط المستقيم افقنا مع الصراط المستقيم طريقة علم والهدى لا طريقه الجهل والهوى صراط الذين أنعمت عليهم أبفنا نعم معها بكمال الإيمان كمال الأنبياء والأولياء غير المحدوب عليهم كاليهود والنصارى ولا الدالين يقوم أدلهم لا أن ترى هداية إلى طريق الدلالة أمين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد رسول الله سيد أهل الدنيا وأهل الآخر wa ala alihi wa ashaabihi wa asna qadimihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokki taalibe yi mbokki jullit yi gannaaw bu nu jiitalee sant suñu borom bu tedd bi tabaraka wa julli ci Moustapha xayru xalqullaahi ñoo ngi leen di nuyuwaat fii ci seen Box TV nuyoo bi nu aadoo nuyu mbokki taalibe yi ci émission xidmatu xaddim bii di leen ñaanal jàmm ak yërmande sunu boroom ak barke ci barke Cheikhul Khadim Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi doon waxtaane nag danoo xam ne mooy lépp te mbokk taalibe it mel ne diggante Ahmad ak Muhammad bi ma doon waxtaan dama digg woon ne danañ ci def beneen émission mel ni mbokk taalibe noonu sàkkuwaat ngir ñu dolli ko muy koo xam ne ku ne xam na ne lépp lu am rek mooma jaabir danoo jële ci moom mu wax ne xaala xultu yaa rasulallahi nee na daf ne yaa muhammad alayhi salaatu wasalaam axbir nii an awali cheyin xalaqahu law taala qabla asyaay dama lay ñaan nga wax ma lan la yàlla yàlla njëkk bind lu njëkk nekk te fi ak mbindee fi قاله صلى الله عليه وسلم يا جابر أن الله تعالى خلق قبل أشياء نور نبيك من نوره منكو يالا لي مو نك بيند موي سا ليروك سي يوننت بي بيند كو تي نور تي ليرام ساكا تي ليرام فجعل ذلك النور بدور بقدرتي حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح wala xallamun wala jannatun wala naarun wala malakun wala samaun wala ardu wala shamsun wala xamarun wala jinnun wala insu mu xamal ko ne ko boobu yàlla bindul dara dara amut ci kattanam la bind ci waxtu woowee bindagul lawxu bindagul xalima ga muy bind ci àlluwa ja bindagul ajjana sawara bindagul malaayika bindagul asamaan bindul suuf bindul jant bindul weer bindul nit bindul jinne waaye fa la ma araada allaha an yaxluqal xalqa nee na ba yàlla bëggee bind bindeef yi xasama saalika nuur arbaatul aksha yi leer googu yàlla sàkkoon ci boppam moom la yàlla xaaj ñeenti xaaj yonent bi salaa salaam di wax ne fa bi ci si awal al xalama mu jël benn xaaj ba ci ñeenti xaaj xaaje bind ci xalima ga ومن ثاني مجل نياري الخاجبة بنديك الله المحفوظ ومن ثالث نياري الخاجبة مبنديك عرس ثم قسم الجزء الرابع خاج من ينتل بمو خاجات كون ينت خاج فقال لك من الجزء الأول عملة العرش مبنديك جلوم ينت ملاك يوي سرين تواي وخنا كو خمسيني تردو لك مو ينتي عرس عمل الذين يعملون عرش فقادهم حاون جلوم ينت ملاك لك ñoom fadali yara i wasat maya ilu wasam kayel wasas maya ilu wasan jaya ilu wasas ilu afis wa lay sekkun abada ata yaqudu maq ata yara maqadoo fi janna sëñ nee na ku mokkal seen juróom-ñetti tur doo faatu mukk te gisoo sa kër ca àjjana mu wax ko ne ko wamin saani ca xaajum ñaareelu ñett ñeenti xaaj yooyu mu bind ci kursi yu muy toogu ba yàlla ba wamin saani xaajum ñetteel ba ba ca des mu bind ca malaayika yi jël xaajum ñeenteel ba xaajaat ko ñeenti xaaj ba mu xaajee xaajum ñeenteel ba ñeenti xaaj fa xallaqa fi awal awali asamawaati mu bind ci xaaj bu njëkk ba asamaan bu xaajum ñaareel ba mu bind ci suuf bu ñetteel ba mu bind ci sawara jël xaaj mu bind ci suuf wasaare mu bind ci ajjan ak sawara ci xaajum ñetteel ba mu xaajaat benn xaaj ba ca ñeenteel ba ñeenti xaaj jël benn xaaj ba mu bind ci xaaj bu njëkk ba noorul ab saar loolu moomu nii gëm yi leeru gëm googu mu bind ko ca ba men saa ni xulub bi mu bind ca xaaju ñaareel ba leeru xol yi wa hiya almaxrifatu billaahi mooy xam yàlla gi nga xam ne ginnaaw ngëm gi xam yàlla gi nekk ci ginnaaw ngëm mu bind ko ci xaaj ñaare bi ba min saalisi nooru unsihim wa huwa tawhidu laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñetteelu xaaj ba mu bind ci kalimatu tawhid bii la ilaha illallah muhammad rasulullah salaa sallam Sëriñ Tuubaa nee na bi mu ko bindee man Sëriñ Tuubaa wattu naa xaaj eh, laa ilaha illallah muhammad rasulullah yooyu ñetti junni at bi mu daataan xam nga ne sëriñ bi day wax lu bari lu mel noonu jaamu naa yàlla ñett téeméeri junni at ajaabali rahmaanu xablal xalqi sattiina alfa sanatin nangul na ma moom yàlla juróom-ñaar fukki junni at lu jiitu muy bind bindéef yi jaabir ñu jële ci ibnu abbas mu wax ne xalaqoo yowmal jumaati mu doog a bind nag ñetti junni at ba mu ko defee mu bind nag aadama ci loxoom moom yàlla tën ko ci loxol boppam ba mu ko tënee nag la mu bindoon noonu lenn lu ki ne mu jël ko dagale ko fekk bind na yey juddoo ci ñoom yu bare bare bari waaye loolu lépp mu dagale ko ki yomal juma yomal ahad la tàmbalee bind mooy bis bu njëkk ahad yow ma usna yi dañuy wax bisum ñaareel yow ma solasa bisum ñetteel yow ma arbaha bisum ñeenteel yow ma alxamis bisum juróomeel waaye boo déggee ñu yomal jumaa boole gi mu boole lam bind lépp dagale ko bind ci aadama doomu aadama mooy synthèse su mbindeef yooyu mbindee aadama nag ci waxtu woowu moo tax mu ne ko inaa jaxal naa ko xalifatan fil ardi li tax mën koo def ak kuutaay ci kaw suuf dafa mën a dundal suuf si ndax lépp dafa ne ci moom mu bind ko ci waxtu sawaal ki yomal jumaa ba ci waxtu tàkkusaan su ma xalaxalaahu lahu xawaa zawjatuhu yàlla bind ci moom soxna xawaa fi dirhimin itlaahi yusra wa huwa naaimun ki faaru càmmooñ faaram ya te gu càmmooñ ga te la bind awaa ba mu jógee daal koy gis rek wa sakkana ilayha wéetaay ba day daal di tàmbalee dañ wa madda yaddahu laha mu daal di jël loxom bëgg jëm ci awa fa xaala lahu almalaikatu yaa aadama mu ne labbayka xaala wa limaa waxat xalaqaha laahu lii yéen lu ngeen may woowee kii may tàllal loxo jëm ci moom yàlla da ko bind ngir man malaaka yi ne ko fa xaalu lahu malaaka yi ne ko xataa tuuti mahraha faw bala ngaa mën a jëfandikoo soxna si bala nga cee mën a teg loxo mu lay war nga di ko laal da ngay génn ak canam Adama wax ne wa maa mahruha luy can gi keroog yàlla daf ko wax ne ko tusali ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallama salaasa maratin yàlla ne ko na nga julli ci yonent bi salaa salaam ñetti yoon moom la cane soxna soosu nga xam ne ñoom ñaar ci la yàlla tàmbalee génne bindee bi muy abul basar bàyyi bindee euh, ñoo ngi xaraja aadama min janna bi ko yàlla génnee àjjana it ngir laal ga mu laal garab ga moom aadama wax ne dafa gis maktuban ala saaxay arshi wa ala kulli mawdihin fil janna ismu muhammadin sallallahu taala wa sallam ne dafa xool àjjana ak téeg yaag aras ak fu mu fa xool rek gis yàlla bind laa ilaha illa muhammad rasulullahi nee na bi ma koy tuubal nag dama koo tuubal ki darajay rasulullahi jooju ndax lënkale yàlla lënkale turam bi bi Adama neena ci la xamane moy ki yalla gëna bëgg ci lim bind ndax man la yalla ñëk bind bay nit waye fekk na turam wo ci fep ci pays suñu borom yalla jéggal ko ki turu jéggal ko ci yi rasulullah sallallahu alayhi wasallam motax sëñ Tuubaa di wax na bil Mustafa shaggadat amlaku mursidihi li jaddi Adama nuran fihi muhtasima ki am la yàlla sujjootloo woon malaayka yi itam ci moom ci jaam la ko yàlla jéggale moom aadama alayhi salaam moo tax ba mu ne yàlla kii nga bind nii mu ne ko kii sa doom lay doon waaye lawlaahu maa xalaqtu ko bu du woon moom yow aadama duma la bind fa xaala yaa rabbi maa haasa nuuru mun ne ko haada nuuru nabii min suriyatika ismuhu fi samaay ahmadu wa fi lardi muhammadu keroog la ko yàlla ne aw ci kaw mooy ahmad waaye su wàccee doon bindeef muhammad lay tudd mooy aqiqatu ahmadiyati ak muhammad yi bi ma doon waxtaane keroog la ko yàlla wax aadama ne ko ismuhu fi samaay ahmadu waaye wa fil ardi muhammadu lawlaahu maa xalaxtuka wala xalaxtu sama awal arda moo du bind suuf du ma bind asamaaw moom rek maa tax ma bind lu ma bind rasulullah salaa sallam ci yërmande yow jooyu bi ko yàlla bindee na ngir lépp te ne ko maa arsalnaaka illaa rahmatan alamina dama laa yónni ci bindeef fi sàkkaleeg sama bopp ngir yërmande bindeef yi moo tax alayhi salaatu wasalaam ba mu dikkee andi yërmande yàlla ji muy diine yàlla ju kawe ji nga xam ne képp ku ci ne am jàmm àdduna am jàmmi alaaxira ba muy matal ab liggéeyam te yàlla xamal na ko alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum islaamu diinan saxaaba yépp keroog danoo daal di am mbégte waaye Seydina Abu Bakrin ku ne daa fekk mu am njàqare ba nu dem di ko kalaame ak yonent bi yonent bi ne daal leen ko muy yàq moom boroom xam-xam bu mag la ci yàlla wan leen rek dañu ëpp xam-xam ci yàlla ñu dem ci a Ababacar ne ko ñëpp lu bég bi yàlla wàcce aay bi wane ne sunu mission mat na te gërëm na ko te defal nu ki ak mat Ababacar ne leen da ngeen a bokkul ak mën ak dégg xanaa xamu leen ne ginnaaw mat manqué rek a ciy topp <laughs> Seydina Abubakar ne leen comme yàlla ne mat na xam leen ne ginnaaw mat manqué rek a ciy topp wa ma ba'dal kamal illa nuqsaan yonent bi xam ne ne day manqué ndax aba Ababakar mi ko war a wuutu xam ngeen ne moog mbindeef yëpp boo leen jëloon teg ci balance sëñ Touba nee na la wujjiha naxwaa kullul war a xaaru boo jëloon mbindeef yëpp teg ci balance teg rasulaa ca wet ga ca des mu wat leen <laughs> sëñ Abubakar kon di kenn ci mbindeef yi xam gi mu xam wuutu gi mu ko nar a wuutoog gii nar lislaam nar a ñàkk te mu daan waxit nag diine ba daa xariban fa seen xulu xariban fa tuubaali xurabaa yi diine gi ki tumuranke laa ko fekkoon waaye dana tumurankewaat ba def ba mel na ma ko fekkoon waaye fa tuubaali xurabaa yi tuubaa ñeel na way tumuranke ja way tumuranke ya ban na ko man humul xurabaa ñuy way tumuranke mu ne allazina yaslahuuna maa afsalahu naas min ba'di min sunnati wane ne Serigne Touba sama sunna si dana yàqu yaxeet ba jeex takk ci waaye moo koy dekkalaat uma sikk sàkkane jamono aaxiru samaan boobu buñ ci eggee islam tour rek kay des ci kaw suuf laa yabqaa mina islam illa ismuhu wala yabqaa mina alquran illa rasmuhu alquran dessin bi rek a fi des masaajiduhum aamiratun wa hiya xaraabu minal huda jàkk yi day bari rafet lool waaye doo ca fekk kenn ku jub Seexul Xadiim yonent bi ñaan yàlla ngir mu wuutu ko ci xeet wi ndax gis na ne iblis boobu bari na doole bari doole goo xam ne te mbindeef fi muy degeel yépp kenn amul kattan gu mën a taxawe ba mën a dox digganteem ak yàqam gu rëy googu ak wammat mbindeef yi jëme ca la yàlla bëggul ak jëme leen ci safaan yàlla dégg ko asa an yabxasuka ko maqaaman mahmuudan yonent bi sallallahu taala wa sallam yàlla dikku dikku ahmadul xadim nga xam ne dafa bind wax ne tuubaal li man bala xam mi atta rabihata bada alfidin ku ko bindal waaye bokk na ki li mujj a wax moo tax si Moussa Ka di wax ne Touba li man bala xam moo ba yan ban yenoon ak lab ko moo li man bala xam mi atta rabihata bada alfi fu mu tëddee ba am junni at ak ñetti téeméer taxe ñeel na ñay fekk téeméeru ñeenteel ba ngir daraje ja ko yàlla dig ne dana ko wàcce muy ahmad mi nga xam ne wax naa leen ci kattanam leeru yàlla googu ni mu gën a jege yàlla lépp ndax yàlla kese la te leer la te mooy ahmadu yàlla dikku ne ko bu boobaa dinaa ko wàcce ci kaw suuf moo tax ahmad di jëmm joo xam ne mooy jëmm ji nga xamante ni fil ardi Muhammad lay tudd waaye lawlaahu maa xalaxtuka waaye nag ismuhu fi samaay Ahmadu mu digg nag dikku maqaman Mahmoud moomu loolu taxoon na sax moom alayhi salaatu wasalaam di ñaan loo mbindee fi diggoo ko yàlla dikk xéewal gu réy googu ci sunu biir te muy koo xam ne doxul benn condition joxul benn benn boo xamante ni dane ku fekkee jamono jooju rek texe ñeel na la muy lu rëy nag loo xam ne nit ñi mënu sax am dégg gu toll ci dégg ko ndax nit ak li mu baaxoo dégg ci lislaam wute na ak lii waaye fekk na darajaam ak liggéeyam moom ak la muy yenu kii coono ak i nattu ak la muy yenu ci jaamu yàlla ak liggéeyal Moustapha alayhi salaatu wasalaam day mën a régler problème yépp moo tax mu ne jaam yi na ngeen ma koy ñaanal li ma yàlla dig moo tax mu diggee woon saa yu déggee ak nobb nodd jullit bu ko dégg ne allahuma rabbaha si daxwati taama wa salaatil xaaima aati sayidina muhammadi al wasilata wal fadilata wa darajata rafiha wa baxsuru allahuma maqaman mahmudan allasi waadtahu fa innaka laa tuxliful miaad maqaaman mahmudan bi nga ko dig te ne ko da nga ko yónniwaat ci maqaama boobu yàlla nag nu ko ëndil ndax yow de doo diggee te doo def dig ba loolu yonent bee ko ñaanlu waaye ràmm gii mu nar a doon ci mbindeef yi dafa dig képp koy wax mu jële ci ak ràmm jële ci ak taxe ci baat yi nga dégg wala yu yeeg bu yeeg fukk ci déggum nodd di ko ñaan moo tax bi mu demee gànnaar moom Serigne Touba ku ne xam na ne naar yi jaaxale woon nañ ci moom lool ndax ñoom xam nañ ne kii mënta doon kenn ku dul xayru xalqulaay ndax ay wàllu lanu kamaal ay surafaaw lanu mais gis nañ ni mu leen géttee ci lépp tey waxit wal yawma bii la ujuhin man sha'ahu fi xadim bi mu dikkee ci mi ataraabiha ndax Mamour Anta Sali xam ngeen ne fanweeri at la duwandanoo moom moom sëñ Touba te ama saraxa la gane àdduna bi gàddaa gi tegee junni ak juróom-ñaar fukki at fanweeri at yam dundandoo moom téeméerum ñeenteel bi dafa daal di dugg mu ñeenteel te téeméerum ñeenteel bi yonent bi da wax ne Touba dama bañu àttaraabeex kenn la sëñ Touba taxaw wane ne mooy junj bër su lay doon junj ca na war woote wooteem bu boobu nga xam ne yàlla digal na ma xamal leen ne maay seen muccukaay <laughs> xamal leen ne maay seen rawukaay amarani rabbi an usare bi anni malaasun wa imman wa maftahu maay seen muccukaay seytaan mi ngeen ragal nu ko raw la ma ragale moom mi ngeen di wattu ni ngeen koy wattoo nu ko raw la may ngeen koy dawee nu ko raw la may dawee man Seexul Xadiim ni ngeen koy musloo nu ko raw la may musloo yàlla def na ma may seen sowetaas man Serigne Touba nee na ngeen ñëw jënk ma seen bopp loolu la Sëñ Tuubaa daan wax ci njëlbeenu woote bi yàlla dimbali nu mu bax waxam ju rëy jii te lépp di yàlla kese ak sàkku Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yërmande yàlla la ci ñun ñu war koo jëriñoo moo tax daana bind li wax ne wala yow ma bii laa uyuhin man saa awu fi Seexul Xadim day wax ne tey jii ñu nekk la gën jëm képp ku yàlla nar dimbali ci man la la yàlla dimbalee moo tax Seexul Xadim mu baax ma ak noppi ga da ngay dégg muy wax ne moom sëñ Abdou Khadre jàmbaar amu fi ku nu dimbali rek fi am jàmbaar amu fi ku nu dimbali fi am nga xam ne Isaa ibnu Maryama gis gim gisoon leeruk Ahmad googu ci kaw moo tax ba muy wax yaa banii Isaa inni rasulullahi ilaykum musaddiqan limaa bayna yadayya min tawraata wa mubashiran bi rasulin yaati min bahdiya ismuhu Ahmadu la wax ndax booba rasulullahi wàccagul ci jëmmi Muhammad mu ne leen turam mooy Ahmadu ci alxuraan. la lii dikk Isaa ne damaa ñëw di dëggal tawraat ji fi Moussa andi woon di leen bëggalit ci yonent buy dikk sama ginnaaw te bu dikkee Ahmadu lay tudd moo tax bi ko naari laajee ne ko yow de ñun nangu nan ne yaay rasulullah ñëw nañ topp la gànnaar kii wax émission bu njëkk bi dégg ni ma ko waxee woon nga xam ne loxoom yi tedd yi la balloon ndoxam ma nga xam ne yi ma fi doon wax muy tabook ak bi ñuy def odey bi yëpp bu ci ne gis naa ci xam-xam loxoom yu tedd ya bi ñetti jotaay yoo xam ne seen marwa baaraamam yàlla tàllal ndox mi di ca ball kon ndox mu ball moomu yi ma ci tudd ci émission bay passé yëpp bu si ne koo mas a am ci jotaay buy noonu muy jëmm joo xam ne naar yi wax sëñ Tuubaa ko waaye moom danoo gisoon ne weñ daawu ko takk te yow danoo gis weñ di la takk ñun dañoo gisoon ne rasulaay amul takk ndeer te yow danga am takk ndeer tànkam bu ko masaan tekki kaw suuf du marqué te yow sa tànk boo ko tegee day marqué ñun wax loolu Sayxul Xadiim rasul Sëñ Tuubaa ne ngeen xam ci dikkam jóge ci yàlla ñaata yoon naar yi ne tekk kenn xamul lu muy tontu Sayxul Xadiim Sëriñ Tuubaa leen dikk na fi ñetti yoon dikk na fi doon leer dikk na fi di takk ndeer day doog dikk ci jëmm muy sama jëmm ji waaye takk ndeer du am takk ndeer leer rek takk ndeer it du ki takk waaye daa dikk nag ki ñett yooyu yëpp ha ana man mii maay jëmm ja di leer ga di takk ndeer ba loolu Sëriñ Tuubaa ko tontu fii ci gànnaar moo tax sur awee ah sur xar ni su ba Rasulaay joxee leen mantoom ba ñu dem ca moom tam ne leen gisu ci moom lu takk ndeeram loolu xam ngeen ne ku day ne Uways <laughs> dëggal na li sëñ Tuubaa ne takk ndeeram a feeñoon foofu Uways sur xar ni yu daf leen tontu ne leen gisu leen ci Muhammad lu takk ndeeram yéen ñii bi ñu ba ci Ababacar mu ne ba ci Ababacar ma ci xabroom kon takk ndeer boobu moo tax sëriñ Tuubaa muy jëmm joo xam ne yàlla daf noo dimbalee ci lii boo ko xamul doo mën a xam mukk ne ahmadu al amru la si sabaqa bihi sallallahu alayhi wa sallam fi hamdillahi ala kulli hamidin ki jiitoo képp ku yàlla bind ci gën a doon ab cantaakoon borom màggal gi nga xam ne sant na yàlla ba woo murid yi leen kaay leen sant ma yàlla moo tax ñu ahmadu mooy ki gën a sant lay firi baat bi baatu ahmadu muhammadu mooy firi ku nu sant ki waaye ahmadu ki gën a sant ki kentaakoon yi mooy ahmadu moo tax amul kenn kuy sant fil wujuudi misla ma xamid ahmadu moo tax Sëriñ Tuubaa ki tagg yi mu koy tagg sax da ngay dégg mu ne ko ahmadul amidina ahmadu xawsin ahmadu xawsin al xawsu mooy xettalikat te xam nga ne bi ñuy dikk jamono moom Sëriñ Tuubaa di xettali si mbindeef nit ku lab boo ko dee dimbali da ngay ñoddi rek waaye amul loo ko mën a diggal te lab ga donte ma ngi lay dégg sax donte du la mën a dégg waaye ma ngi lay dégg mënoo koo diggal ci lab lu dimbali ko xacc ko rek fexe bëgg sowe ko moom lay xawsu moo tax mu ne ko ahmadul amidina ahmada xawsin xawsu nag ci maqaama yooyu ndax muhammadiya mooy alxukmu ahmadiya mooy alxikamu waaw yàlla atteem la joxoon Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu indi ko ci kaw suuf waaye xam Ahmadu al al xukumu la mooy xikam la mooy mooy layu yàlla daanaka ci mbindeef yi yàlla ku mu naree dimbali da layal waaye bu la naree attee da lay layoo ak yow ku mu layoo yaay ko ku ne xam na ne ñoom fukk rek la ki yonent bi ne woon am ngeen àjjana tey jii Sëñ ay yéefar yu ko mu dara julli na ci seen biir ne asalaam na yóbbu àjjana ngir baatu salaamualeykum yi sëñ Tuubaa ci ab nasaraan bu mës def dara yàlla dugal na loxoom ci biir di dugal alxuraan ji bañ taw bi tooyal ko ci euh, gabon mu bëmbax sëñ Tuubaa gi mu ko bëmbax dënnu gee ko rey ngir ñàkk war ma gëm ñàkk war ma sëñ Tuubaa ak ni yàlla tollale sëñ Tuubaa waaye bu mu duggee bàmmeel sëñ Tuubaa daa gis yàlla di ko teral mu laaj suñu borom ne ko kii kat jaaxal na ma mës gëm yàlla mës ta def dara lu baax te def ma lii ma def def ko sa téere bi ma doon wormaal yàlla ni ko laal gi ma laal laal moo tax ma ne boo kenn laal daana def yu raw loolu ci ramu mbindéef moo tax boo dégg ma ne la xat sabaxtu falaa yax fa ala ahadin ila ala ahadin asxaaw mawlaahu Sëriñ Tuubaa ne jiitu naa te jiitu gi ma jiitu umpul kenn ku dul ku yàlla ndar keew ak texee li te dégg ngeen Sëriñ Tuubaa li muy wax Rasulullah itam làkka sabku yow la ñeen ak jiitu wa taqdiimu ak jiitu ak jiitu ak njëkk wal xurbu wa liqaa si yuxsi dawaaman man naxaani bi laa fadli loolu mook boppam mook rasulullaay la boole wax ci wa yuxsi dawaaman man naxaani bi laa fadli te làkk sabqu la ko wax wa diimu yaa njëkk xam ngeen ne bi mu daataan bind dara laa fi waxtaane ba muy wax itam alastu bi rabbikum ca ba nuy alamul arwaax kenn wuyut ku moom واحمد خيب من احسن القيوب رسول الله نانا مبوتم يالا مي گنا نيب سي مبوتم مي موي احمد موتا دا نا واخني كين منو ما خام كودول يالا خموما موم خير خلق موم خير خديم وفي تفديده في الاخره فدائل اولياتي وانفراده بشفاعتي ومقام المحمود بين جميع المخلوقات والترقيه بالجنان احل الدرجات وخير ذلك من تكريم الله له Mohamed ma ngi wax ne ngëneel yooyu nga xam ne moom la ñu doon ñaanlu ak maqaaman Mahmoud yi nga xamante ni bay na jamil maxluqaat yi dañ koo laaj moom rasulullahi salaa salaam mu ne tedd nga yi gën a kawe ca laa koy amee xam nga ne ba nga xamante Abdul Muttalib maamam ja taxawu na ko fukk juróom fukki at ak nangam mu yéene ko ak mucc tiim ko daan ko waxal laa ilaaha illallah ak bi ko ay noonu yàlla sax laale mën a amu mucc ci biir laal gi ko laal xam nga ne yooyu maqaama bokkunu ay daraja ba muy dugg ca xunti ma di làqatu suraaxata nga xam ne yàlla dafa saxal garab ngir dàq xayru xalqulaay bi sax ñëw tàgg fa ca garab ga nen fa jargoñ lënd bunt bi ba ñoom bi mu dikkee ne nen yi bu fi jaaroon mu toj nen yi ak lënd yi mënu fay jaar ba daal di wàññiku xam ngeen ne wuute naag doole ji mu taxaw woon fii ci tund jeewal kii tund jeewal ñaari téeméeri góor ak juróom fukk yore fital teg ci seen i mbagg mu taxaw kaw tund wa kii duggoon ci biir xunti ma moo tax daana wax ne may safaanam ba ko noonu xatalee ca Makka dafa gàddaay ay noonam dem ciy soppi Madinat mun na war ñuy tëgg seen tabala ya naan talaxal ba du alay waaye man xaadimu rasul maa gàddaay samay soppe Cheikh Rafal ak mag ñu baax ña ñu toog ci taatu gaal gi sëñ tubaa ne leen dénk naa leen yàlla dama su ma kaa dénk dara ba am ci lu mën a xarit waa daxal murid suma raja ilal jasirati bi xalbin wa jax xamuñu fu sëriñ Tuubaa jëm ne biir gaal jëm ca ay noonam mu jóge ci soppeem jëm cay noonam kay jóge cay noonam màkk gépp taxaw ku ne ku joxe kenn ponkal ñu ne nan ko reyandoo kon ku xërëm yi duñ mën a xeexal ñëpp arab danoo mën a fayantoo ñu ne leen ko rayandoo dëkk bépp ku ne jël ngàndaay di ko fekk ci këram ga te la ko yàlla digaloon mu génn makkatal mu karam sëñ Touba nee na boo gisee ma ne sama tey ju ne day gàcceel sama démb moom mu ne sama démb ju ne moo gën sama tey <laughs> nee na safaanoo googu ñu safaanoo kii jóge ci noonam jëm ci soppeem ak suñu sang bu tedd bi jóge ci soppeem ñu fanaan ci taatu geer ga ak seen njàqare ya mu jëm ci noonam ñun xamul fu mu jëm xamuñu tur gabang nee na ci biir gaal gi laa xamee gabang man sëñ Tuubaa moom ci boppam waxumaa ñoom ñi nga xam ne ñoom la fa bàyyi loolu mooy maqaamaam bi nga xam ne moom la ko yàlla diggoon te muy kàttan goo xam ne li mu yéene woon ci mbindeef yëpp te la moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam muy ñaari doole yoo xamante ne ku ne xam na ne yemul ku xam colonisateur yi seen puissance xool doole ja doon suraaxata yoroon muy ay fitt ak xeej ak jaasi da nga xam ne ñaari kàttan yi yemunu rasulullah salaa salaam moo mënu ko fàggul nag ki jamono ji nga xam ne moom moo tax daana wax ne xaman mahmud fa xaala huwa safaatu dañ ko laaj ne ko luy maqaaman mahmudan ji ngeenu ñaandoo mu ne leen mooy ak ramu mooy ak ramu koo xam ne dalay lay ñu jàpp la ba nga xam ne yow dem sawara képp a des ci yow mu ne lu la ameel kaso bii kan la nar a dugg waaye ameel na ma nangam nga daal di jël fayal ko waaw nee na kooku mooy maqaaman mahmudan mooy loo xamante ni xaala rasulullah sa an maqaamin mahmudin den dañ koo laaj su ila rasulullah sa an maqaamin maqaamin mahmudin fa xaala huwa safaatu xaala ilay inna naasa yasiruuna yowma alqiyamati jusan ay jamaahatin kullu ummatin yatbahu yaquluuna yaa fulaan asfax lana atta tantahi safaatu nee bu ëllëgee ñëpp dañu topp ci gannaawam naan ko dimbalinu ma sama mahmudan boobu nee na ke lay ya ak xeetam xeet ya jiitu woon ak kilifa ya ak seen mbooloo ya xam ngeen ne kenn ku ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jàngale ne yàqulu naf si ñoom yonent yëpp daan leen woo ñu ne tey tàlluma leen sëñ Touba nag maa xaman Mahmoud bii nga xam ne moom laa doon waxtaane ci moom nii te ne moom lañu doon ñaandoo dikku Serigne Touba boo jàngee waxi Serigne Touba ji mu naan wax a bëli yi xayral war a shafaaha fi man ahabbahum wahum jamaaha ak addis bi mu ne ay mbooloo la ñuy doon di ko ramm di jëme àjjana moom ci kattanu maqamam mahmudan boobu moo tax mu ne yàlla jox na ma ramm ga man Serigne Touba daana wax ne sama loxo bu tuut bii ku mu séddu da ngay fande Cheikh Sidiya Baba moo tax mu ne fa ruslu law lam takkun li Moustapha xottimat qul naa la anta rasulul Moustapha taliqu bu doon yonent yi dañ noo xamal ne ci Moustapha la yem yow di dañuy mën a waat ni yow ab yonent nga waaye xam ne ni wàllu yi moom ëpp na ko li ngay def jëfi wàllu yu ëpp na ko lakkin lawu asanaatun kun na law xosimat mal jawaab bay na ahlul kufri maxtaraxu te gis nañ ci yow yiw woo xam ne ak njariñ yoo xam ne ak tuyaaba joo xam ne payu yàlla goo xam ne mal jawaab bi sum njàqare ba law xosimat bu ko yàlla séddale bay na ahlil kufri ñi weddi yàlla ak ñi gëm yàlla ñëpp yàlla doon leen ko séddale maxtaraxoo kenn du lakk yow ma jumaatu lakk baar kooku mooy kattan gii fi Serigne Touba indi nuy ñaan yàlla fayal nu Serigne Touba te fayal nu Rasulullah sallallahu alayhi mi nga xam ne moo ko ñaan ba yàlla indi nu ko lii nag ku ko yàlla defal dafay jell ci yow nga di sant yàlla ñun ab murit sant yàlla rek ko war ndax Serigne Touba defar na lépp waaye nu nit am war noo mérité ciir boobu sëñ Tuubaa defar na lépp ci làmmiñu Sëriñ Saaw laa ne laa nangoo mu ne yoon wi sant ak jariñu rek a ci des santa ak jariñu rek a ci des sëñ Tuubaa defar na lépp liggéeyam bii bu yàqu woon suñu lépp yàqu waaye bi mu baaxee lépp baax na kon ñun ñëpp war a maase nee na ni yàlla waralee ci ñoom bindeef yi ñuy julli ci yonent bi it noonu la waralee ci lu yàlla bind bay neen insi wal jinni wal malaa'ikati ñu di ma sant man Sëriñ Tuubaa kon yàlla nunu yàlla xeer ci nangu sant googu ak liggéeyam bu bii mu liggéey ba sobe àdduna yàlla fayal lu ko te moom it ñu xam ne koy sant nit lam bëggut doo du la ca gis mukk sant nga gën a rëy mooy ki ngay sant nga xam ne yow day war ngaa rus war ngaa jomb ca lam la defal ba nga yëg ne war nga koo sant mu di la gis ci loo xamante neexu kon li ko neexoon ñëpp xam ne ko li mu bëggoon lu baax rek la ma sa bëgg lu bon rek la Sëñ Tuubaa ma sa bañ ba mësu ko laal faaroxtu iblis wa jami al mafasidi wa bismillahi rahmani rahim laa samtu rasulullahi sallallahu alayhi wa jami masalihi taqalikoo na ma ak iblis ak lépp lu bon taqoo na ak lépp lu baax ci xalimaam gi nga xam ne day yëngal aras ak kursi yu ñu xam ne ku bëgg a sant Serigne Touba kon al mafasidu kullaha day ngay moytu ko te sax ci al masalih yu yiw yu baax yi te bàyyi leneen la loolu day bokk na ci xeeti cant yi nga xam ne yëg naa ne jàpp naa ne moo gën a rafet gën a war ci noonu suñu diggante ak moom noo ngi ñaan yàlla fayal nu ko tey ñaan yàlla xéewalu yàlla googu mu doon yàlla xéewal ci mbir kon yëpp ndax Cheikh Sidiya Baba moomu da ngay déggaat muy wax ne a seyxu ahmadu nihmatun awla hasil xalaayixa kullaha mawlaha xéewalu yàlla gum xéewal mbindaafoon yëpp la innama seyxu nihmatun anahama laa wax aayata ne a seyxu ahmadu nihmatun awla hasil xalaayixa kullaha mawlaha xéewalu yàlla gum xéewal mbindaafoon yëpp la innama sayxu nixmatun anxama lahu ayatan min ayati nee na ay kéemaanam la moom Serigne Touba moo tax daana wax ne baana li ko li mën lahu wilaaya kaw nii li xaali xal bara aaya man Serigne Touba de ku am wilaaya xam nga ne man kéemaanu yàlla la kéemaanu yàlla googu nga xam ne mooy ajaban li kaw nii nag yàlla na ko yàlla fayal te fay rasulaay mi ko sàkku ci yàlla ba mu ñëw fi di ñaanal jullit yëpp yàlla tawféexal leen ba lii li ñu yàllant bi yéene mu yéene ko moom Serigne Touba xeetu yonent bi yal na leen ko yàlla defal ñu muurloo ko te defal ko bépp taalibe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. سيدي